jërëjëf euh, mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy topp ci seen euh, émission bi di Touba ma yónni seen mbokk taalibe Fallou Galass Syll di ko ànd ak yéen jàkkaarloo ak ci wàllu caméra bi Serigne Mountakha Ba ñu leen di jaajëfal di leen euh, ziare bu baax a baax dellusiwaat nag ci ndawul tuubaa Touba Touba yónneeti ma fan la ma Touba yónni tey jii ci gaaw bi yemoo ak ñeenti fan ci weeru novembre fu ma Touba yónni guy mbind mbokk yi maa ngi ci tëli bu doy waar tëli boo xamante ne bii la ma waxoon rek ci kër Alhaji Mouhamadou Lamine Bara moom lay waxaat fii mbokk yi tali bi tal jamono joo xamante ne bii mbooleem administration bi ak mbooleem nit ñi yoon wi ñëpp tali bi itteel na leen ndax lan Serigne Touba Cheikh Sidi El Mokhtar nekkoon fi di xalifa général des mourides mbokk yi tali bi jamono jooju lañ ko fi defal maa ngi tali bi jógee gaar ba ñëw bay dugg Guy Mbind tourné ci buntu kër Serigne Bassirou Khadim Awa Ba jaar ci pencum Guy Mbind jàll waaye beneen bi continuer dog yi rocade bu mag ba nga xamante ne bii moo di corniche bi beneen bi jaar ko ci sa loxol càmmooñ fi gaar gaaraas bu mag fi daral gu mag njëkkoon ne ne génne gaar bu ndaw mbokk yi nag lépp tëli la waaye lii may gis ni nag yaakaar naa ku ko xool xam ne du tutali de ndox mii mbokk yi dama waxoon rek amu fi mennaat amu fi ñaari at ay at la fi am te ab diggante la boo xam ne amul benn solution buñ ci jéem amul yenn xalaat yuñ ci jéem ba nii lañu ñuy bàyyi Touba te fuñ toll di ñu tuumaal képp kuy wut réew mi daw wut si Touba képp koo xamante ni bii am nga loo bëgg daw ñëw Touba te boo jekkee rek wan ginnaaw waa Touba fu nekk ñu fi tuumaal def nañ Touba nangam def nañ Touba nangam Touba bi ñu defee études yi nga xamante ne bi doon nañ seet rek foo ëpp ay population département Mbacké bokk na ci ñi ci département yi Dakar sax ñoo ko ëpp mbooloo kon kay waruñoo yem ak kenn ay droit li ñuy dugal ci économie bu Sénégal kenn dugalu ko événement yi am Touba amul ci benn dëkk ñu bëgg a yemale Touba ak yeneen dëkk yi ci des mbokk yi nii ba kañ yàqu na kan moo koy defar kan moo ñu koy defaral ñun waa Touba ñoo ngi nii de jafe-jafe bii rëy bala ma ci sori rek maa ngi ak ñoo xam ne dëkk nañ ci karti bi dund jafe-jafe bi muy jafe-jafe bu metti Touba yónni ma sëñ bi maa ngi lay nuyu. jërëjëf waay Thiam laa sant sant man Sidi laa sant. waaw sëñ bi yow noo sëñ bi Diop ah. waaw sëñ bi Diop Diop Diop Diop sëñ Dia Sy Diop. waaw maa ngi leen di jaar. waaw jaajëf waaw sëñ maa ngi ñëw ci quartier bi. waaw fekk bi ay jafe-jafe. yéen waaw lii noo ko gisee. li ma ko gisee kay moo di mhm. man lii sama kër hmm. lii mooy sama kër ñetti at ñeenti at hmm. dañ maa abal kër mënu ma cee dugg hmm. li ci nekk mu ne su ko wax sëriñ bi te gisuma ci kenn ku ci jël benn effort pour di di jëm dara du ndawal buur du kilifa génn du kilifa aada kenn ku ci jëm dara ci mbedd mi amul seetaan gi ñu seetaan dafa metti trop mbedd mi kañ la yàqu mbedd mi mat na ñetti at ñetti at mat na ko yoo xam ne si doon tudd ab tali mi ngi nii yaa gisal sa bopp ndox mi fi waa ji dégg li wax sëñ bi fi lay noor fi lay nawet. te boobaag léegi kenn man ñetti at a ngi nii dugguma saa kër. lii mooy sama kër. gisoo benn ndimbal. ba sar benn suuf. kenn ku la ko jot ne la ko sa biirum nag bi amul ci Touba. waaw moom sa man moom sëñ Mountakha rek a fi liggéey ci dëkk bi. ñi des ñëpp seen bopp lañ nekk. man noonu laa ko gisee. man moom sëñ Mountakha moo fi liggéeyal sëñ Touba. ñi des ñëpp kenn ku ci defal sëñ Touba dara gisuma ko. Mm-hmm. loolu leen jox ñu denc. amul ndimbal lu fi nekk ci noonu man de ñetti at ngi dugg bi saa kër léegi sama kër jërëjëf barke sëñ Tuubaa jërëjëf benn ndimbal bi jërëjëf mbokk yi ñoo ko déggandoo sëñ Dame Thiam Touba guy mbind mbedd maa ngi nii maa nag sama caméraman mu li ñu ko wan yaakaar naa ne moom nee këram ñetti at ngi ne dugg fi waaye ma doxantu ak Serigne Mountakha Ba ñu dugg ci biir quartier bi fekk fi Serigne Ndiaye Diop moom itam ci dara ji yaakaar naa ne li ci mbedd mi du mel mbedd mi ñetti benn bi nga xam ne moo jaar ci kanam kër sëñ Basiru Mbàkke mu sëriñ Xaadim Awa Ba beneen di ko jaar ci ginnaaw ak bi nga xam ne moo jógee jaar ba ñett mbedd yëpp yàqu dégg ni ko sëñ waxee nee na kenn mosu fee teg sa tànk ngir di jéem a xam seet ban solution lañ mën a def ba liñ fi saafara ñu saafara ko bokk fii de Touba ma fi yónni de ñëwalu ma fi sama bopp de Touba ma doon xool rek na ma demal ba bërëb sàngam mbokki bërki Dembo Ndiaye am na ci quartier Touba boo xam ne am yeew lañ fa jàpp yeew mu mat 4 nangam luy waral yeew yi mooy barax bii ak ndox mi fii de bokk yi bu fi am yow duggee mën na fee nekk ba mat ba motti te kenn du ko gis xoolal ma barax bi ni mu sax barax bi sax fenn fu amutum ñax xoolal ma borom bâtiment bi ñàkk na bâtiment am borom terrain bi ñàkk na terrain bi kër yi kenn mënatu fee dugg lii dara wóoru ci te ci biir dëkk bi la nekk lii mën naa jur danse de tëli bi moom kenn limaaleetu ko tëli buñ éliminé la bokk yi lii ba kañ Touba mu ci yónni de muy seen bokk taalibe Fallou Galass Syll Touba yónni waat ko ci ay jafe muy dund ci biiram mu jaaxle ci nag lii ban solution la kan moo ñu koy defaral waxtu wu ne de yaa ngi dégg ñu naan lii moom ONAS moo yor lépp lu jëm ci wàllu ndox muy taa ONAS moo ko yor lépp lu jëm ci wàllu tëli AGEROUTE moo ko yor te ñun ci ab commune lañ nekk commune bi nekk ci ab département département bi nekk ci ab région région bi nekk ci ab république bu tudd Sénégal ñun ñuy waa Touba ami carte d'identité di fay ay impôt di participer ci économie bu Sénégal ñu seetaan suñu dëkk mu mel nii ci dëkk boo xamante ne bii million bu tegal lu baree bare bari dëkk na fi ci ay nit at mu jot lu mat cinq millions wala six millions wàcc fi dugal lu mat deux cent milliards ci économie bu Sénégal ñu seetaan dëkk bu mel noonu lii ba kañ sëñ Tuubaa da ñaanoon na ko waccal bihi daariya kal madina barakatan wa kahbatal masuna ñaan googu nag dañ koy gàttandu bokk yi seen mbokk taalibe Fallou Galass Syll yónni woon ko fii ci guy mbind mu àndoon ak Mountakha Ba mi ne ci wàllu caméra ñu leen di sant di leen gërëm di leen joxaat rendez-vous ci beneen épisode wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa